mi ngi tudd mulku suleymaan mulku suleymaan nag ñi yëngu ci lasraar war nañu koo xam mu nekk jaaru bu baax lool sëriñ bi am na yeneen jaaru yu doy waar képp ku jokkoo ak moom dina la ca jox ay leeral sëriñ bi nag yàlla may na ko lool ci góor ñi nga xam ne dañoo tëlee maanaam ñi dem ba mënatuñu ak ñi nga xam ne dañoo gaaw a yëg seen bopp nee na saafara bi mu lay jox ci kaw cin ngay taxaw sangoo ko foofu ngay yëgee sa bopp kon jokkoo leen ak moom waaye sëriñ bi tamit yàlla may na ko lool ci wàllu seet ak wàllu ñaan ak wàllu kubbeekaay ndax ngit nit ki kat pour ngeen jëflante faaw mu seetal la ba noppi te wàllu seet ak wàllu ñaan ak kubbeekaay noobit yàlla may na ko ci lool moom Serigne Khadim Mbacké général wàllu nopp boobee nee na képp koo xam ne danga am sa soxna wala sa coro boo ne ko benn mu ne la fukk boo ne ko toogal mu taxaw bu ngeen jëflante dina dëppale seeni xalaat jubóole leen boo ne ko toogal mu toog boo ne ko nañ dem du ca teg baat sëriñ Xaadim Mbàkke général yàlla may na ko lool ci wàllu lasraar sëriñ bi nag képp ku bëgg a jokkoo ak moom ci numéro bii nga ko mën a jotee muy 77 341 67 67 77 341 67 67 képp ku jokkoo ak Serigne Khadim Mbacké général yal na sa aajo faju laata ñuy door xibaar yi ñoo ngi wéy ba léegi di leen présenté application bi tudd Sofascore Sofascore nag day yëngu ci wàllu tàggat yaram rawatina football képp ku ko am xabaar yi soxal football di nga ca am ay xabaar yu wér wóor moo xam mat yi daw en direct la ak programme yi ñu dëgmal waaye li ngay def moo di jaaree ko ci lien bi nga xam ne def nañu ko ci commentaire yi ak ci description bi nga mën koo télécharger bu boobaa tamit di nga jàppale kër gii di King Ouse door xibaar yi dooree ko ci équipe nationale bu France xam ngeen ne war nañoo amal ay match ci weer wii ñu nekk mu soxal Ligue des Nations France nag seen capitaine bi di Kylian Mbappé du bokk ca match boobee ndax jamono ji Didier Deschamps di siiwal ab listam dafa amoon blessure bu ndaw naam jamono ji wér na mi ngi football ak waa Real de Madrid waaye boolewuñu ko ci list ba keneen ki di Antoine Griezmann bu yàggu dara la siiwal ni bàyyi na ci équipe nationale bu France jamono ji yépp nag équipe nationale bu France kenn xamul woon kan mooy nekk capitaine am ci match yi ñu dëgmal waaye RMC Sport nee na match yi di ñëw France war koo amal capitaine bi du kenn ku dul Tchouaméni di football ci Real de Madrid moom la Didier Deschamps di tànn jox ko capitaine bi mu takk ko ci match yooye nga xam ne France war nañu ko amal ci weer wii ñu nekk loolee RMC moo ko xam le ñu jugee ci équipe nationale bu France waaye France duñu ko génn gum doomu France tamit duñ leen bàyyee gum dañuy jël doomu France bi tudd Paul Pogba moom nag démb dafa am xabaar bu doon génn di wax ni waa olympique bu marseille dañu ko bëgg te door nañu waxtaan ngir doomu france bi jóge ci yuufe ñëw ci seenub club ñu xaatimal ko contrat RMC Sport nag weddi na xabaar boobee nee na xibaar bi wérul waa olympique bu marseille bëgguñu benn yoon Paul ba te wowuñu ko tamit benn yoon ngir waxtaan ak moom jéem ko jëlee ca Juve loole la RMC Sport xamle ñu jugee ci Paul ba ak waa Olympique bu Marseille dem ca waa Liverpool ñoom nag ñoo ngi waajal seenu ëllëg ndax doomu Égypte bi ñu naan Mohamed Salah desem ca club boobe wóoragut ba léegi su fekkee nag Mohamed Salah jugee na ca club boobee waa Liverpool ñoo ngi bàyyi xel bu baax Mohamed Kudus ma nga ca West Ham doxal su fekkee Mohamed Salah jugee na fa. dàquñu xaatimal ko contrat jamono ji jour yi ñuy bàyyi xel bari nañu lool waaye Mohamed Kudus mii ci la bokk waaye jamono ji moom bëgg-bëgg bi waa Liverpool am moo di Mohamed Salah yokk contrat ba ñu jugee ci seenu club yokk contrat toog foofee jàppale leen loolee la ñu bëgg ñoom waa Liverpool xibaar boobu Fabrizio Romano moo ko xamle. ñu jógee ci Mohamed Kudus ak bàyyi xel googee Liverpool di ko bàyyi xel waaye Liverpool duñu ko génn seen gone gi tudd Curtis Jones woo nañu ko ca équipe nationale bu Angleterre Angleterre bii nag mooy yoon bu njëkk ñu koy woo ca équipe nationale bu Angleterre moom Curtis Jones nekk gone gu footballu Angleterre am ci moom yaakaar ñu jugee ci Curtis Jones waaye génn gu ñu Liverpool ba léegi ñoom nag weekend ba la ñu génn doon nañ jàkkaarloo ak Crystal Palace match boobee doomu Brésil bii di alison Becker yeggaliwu ko dafa am ab blessure bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano dina toog juróom benni ayubés maanaam six semaines door a mën a dugg ci terrain football moom Alisson Becker xibaar boobu Fabrizio Romano moo ko xamle ñu jugee ci Alisson Becker ak waa Liverpool ak seenu xabaar bu naqari jël doomu Angleterre bi tudd ci Chilwell moom nag club bu ñu naan Manchester United ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax jamono ji nag ma nga ca Chelsea waaye amu fa temps de jeu ndax kii tàggat Chelsea tudd Enzo Maresca konte wul ci moom lim koy football loon néew na lool waa mën Manchester United nag lu ñu bëgg moo di jéem koo nax bu ñu yeggee ci weeru janvier ñu xaatimal ko contrat jëlee ko Chelsea indi indi ko ci seenub club mu doxal ñu jugee ci benn ci Chilwell ak bàyyi xel googe waa mën Manchester United di ko bàyyi xel jël doomu Italie bi tudd Mario Balotelli moom nag mën naa am mu delluwaat ci Serie A ba doxal ndax waxtaan mi ngi dox jamono ji ci digganteem ak Genoa waa Genoa li ñu bëgg moo di indiwaat ko ci Serie A ba mu jàppale leen xibaar boobu la républica moo ko xamle moom nag ci fàttali ci réewu turki la mujjoon club bu ñu naan Adana Demirspor jamono ji nag mën naa am mu delluwaat ci Serie A ci fàttali jamono ji agent libre la moom Mario Balotelli ñu jógee ci Mario Balotelli ak bàyyi xel googe waa Genoa di ko bàyyi xel jël doomu almaañ bi tudd Jürgen Klopp moom nag moo doon tàggat Liverpool jóge fa ñu ne déeta waaye mu xam le ne bàyyi na coach balaa yàgg nag mën naa am mu dellu waat waaye nag buy ñëw du ñëw en tant que coach ci beneen liggéey lay ñëw muy liggéeyub directeur mondial ndax kat waa Red bul Red bul nag dañoo yor ay club yu bari lool club yooyee mën nañu caa lim RB Leipzig ak Red Bull Salzburg ak yeneen club yoo xam ne waa Red Bull ñoo leen moom Red ñoo ñooñee ñoo ko bëgg a ñoo ko bëgg a fal directeur mondial mu leen di saytul ay jour di leen jàppale tamit ci wàllu football xibaar boobu Sky Sport moo ko xam xamle loolee nag mën naa am ñu xaatim contrat bi bu ñu yeggee ci weeru janvier deux mille vingt cinq ñu jógee ci yogoon club ak bëgg-bëgg boobe waa Red bul am ci moom jël doomu Belgique bi tudd Thibaut Courtois moom nag dafa amoon blessure waaye jamono ji mi ngi yëg tan bu baax tey ji bokk na ci entraînement bi waar yàlla de Madrid doon amal trêve bi nag bu jeexee Real de Madrid Celta de Vigo lay jàkkaarlool match boobee bu dara soppeekuwul ci diggante bi Thibaut Courtois mën naa am mu bokk ca ndax blessure bi tane na mi ngi ci entraînement yi tey ji bokk na ci entrainement bi këlëbam di Real de Madrid doon amal ñu jugee ci Thibaut Courtois ak xabaaram bu neex waaye këlëbam di Real de Madrid duñu ko génn gum dañuy jël ki leen di tàgga tudd Carlo Ancelotti moom doomu Italie bi nag digganteem ak waa Real de maanaam njiitu club bi am na réeróo bu ndaw bu ca am ndax coach bi bëgg-bëgg bi mu am moo di bu ñu yeggee ci weeru janvier maanaam bu mercato bi ubbee ñu indi benn gan lu mu gàtt-gàtt waaye ñenn ci njiitu club bi li ñu xamle moo di jarul ñuy wut keneen rawatina ab latéral bu dee latéral droite la ñu bëgg jaru ko ndax Lucas Vazquez ma nga fa bu dul Lucas Vazquez tamit